jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan parce que dugaloo branché woo affaire bi. da ngeen léegi dafoo jine jàpp la. dafoo jine jàpp la. ah da ngaa yaakaar damaa doon. donc li dama ko sën ma waaye laalu ma ko di. pare ji ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti am kontaante ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa ñu ngi fii ci école Rebeuss seet si fi xale boo xamante ni macha allah ñeme naa wax ni mooy mbëru bawol bawol yi muy Zal Zal bawal Zal bawal moom lañ seet si tey fekk ko ci école bi muy entraîné ñu ñëw doxantoog moom waxtaan ak moom mbokk yi comme li ma leen waxoon rek wasaare làmb dafay nekk ngir xale yi ñi nga xamante ni làmb ëllëg ñoom ñoo koy téye làmb ëllëg day am ci ñoom yaakaar làmb ëllëg. dinañ bokk ci ñoo xamante ne bu ëllëgee wasaara làmb dina ñemee taxaw ne ah xale bi kat ba mu koy fekk ci école am di ko jël boobu ba dara dul dara la tey ñoom ñëpp loolu lañ leen di ñaanal ndax mbër moo moo fi laaj danaan teral samay waajur laa bëgg tey képp ku bëgg a teral sa waajur ak anam boo ko bëgg a teralee yàlla na doon anam bu set bu sell boo xamante ne bu lislaam gërëm la tey moo waral ñu seet si Zal Bawal bëgg waxtaan ak moom ci làmb Zal maa ngi lay nuyu. di profité di sant waa wasaare lamb bàyyiwuma leen ñëpp di ñaan li ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na ko yàlla def avant tout nag di sant yàlla baax di julli ci yonent bi di sant sama ndey di gërëm sama baay di ñaanal xalif daal ku li murit di sëñ Muntaxa Mbàkke mu yàgg fi lool am wér am gudd fan ak bépp kilifa diine bu fi nekk ñu ngi lay ñaan yàlla wér ak gudd fan. dëgg la. jërëjëf Zal amin loolu am na solo lool Zal tur bi moo gën a siiw jëmm ji wala jëmm jee gën a siiw tur bi tur bi foo ko jëlee ak tur bi fu la toppee. koo ne Zal Bawol mu ne xam naa ko waaye ku dajeeg yow ci làmb ci ci ci mbedd bu dul kuy dund làmb amaan amaana mën na laa bañ a xam. waaw boo xoolee tur bi moo liggéey euh, jëmm ji moo liggéey tur bi te tëbuñu rek am tur bi dañu tarbiwu liggéey mbapat jaayante tey ba yàlla euh, def li mu def ñu dem arène wane suñu bopp mais du dara quoi Zal Bawol Baye Fall la dafa oyofal lépp moom boo ko sibré ci média bi nga suivre ko ci mbedd mi nii boo gisee mën nga ko ñàkk xam parce que lépp moom dara am diisul quoi. lan moo la dugal ci làmb zaal. waaw làmb nag dañu nekk ci quartier bi nekk xale suñu ay mag doon ko def ñoom bu Fall booy rëbës ak euh, yenn grand yi xam nga tey mu nekk lu rafet ñu daan ànd ak ñoom ñu dem ba ci biir fëgg boobu dugg ñu ñu continuer nekk ci ñu dugg ci waaw di wane suñu bopp. nga dugg ban année nga dugg ci làmb. man maay dugg ci làmb fin 2014. ci laa dugg ci làmb waaw. 2014 nga dugg. waaw. nga bëree sa premier combat arène yaa ngi ko bëree kan. sama premier combat arène maa ngi ko bëree euh, Petit Niang combat bu ma neex. Petit Niang Petit Niang bu buun. waaw. moom laa bëree sama premier combat arène. nekkoon combat bu neex bëri coow. boobu moom mu ci ay euh, cinquième combat am man ma nekk gan du ma ko fàtte mu Burxan mooy ménageur Petit Niang di ko nuyu sama papa. Père Burxan parce que dañ ma njëkkoon jox benn mbër mbër bi jël avance bi. bi ma ñëwee ci Assane Ndiaye ñu taxaw Assane ne ma kii moo fi ne ma ne ko Petit Nialam man fekk man xam naa ko ma ne ko baax na Burxaan ne ko bul jóg parce que boo jógee booy bi day delloo avance bi ma ne ko père avance bi dama lekk ba lekkaat leneen ma jël combat bi dem pare ko ma ñëw def. père moo ne euh, Petit Nialam bul jóg. bu jógee Zal Bawol day delloo avance. day ruux parce que tellement que jëmm ji ak maas mi yor ma ne ko peer loolu jarul wax man du ma mës a di bàyyi avancé rek waaw. léegi léegi nga jël combat bi dem waaj kook say mbokk. combat bi ne combat bu bëri woon coow na parce que dama ko jël ñi ma xam ci mbapat xam ba may toj ay combat mbapat gëm nañ ne mën naa koo daan mais tey ñi nekk ci njabootu làmb xamuñu ma boobu gëmuñu ne mën naa daan Petit Niang ma dem jël combat bi deux mois la dem waaj ànd ak samay mbokk ñëw la jour si mel na ku yàgg mel na ku fi ku bëre ci arène bi diis combat imposé ko arbitre suufle ma dugg ci garde bi xeex ak moom bëre loo ko jàpp ko daan ko jël bu rëy mu dem top 5. waaw ah, moom Petit Niang. sa premier combat da nga dugg si am ndam non seulement waxuma ci ndam bi nga am waaye nga nga yóbbu mbër mi nga bëreel top cinq waaw mais xam nga man. gën a doonaat beneen succès dugg ci arène succès la ci mbër nga bëre sa premier combat arène daan ko succès la nga bërewaat ba pare daan daan jël boo xam ne day dugg top cinq waaw parce que man moom li nga indi jël moom kiiru ci man ko man daamu naa daan jël bu rëy surtout combat ba pare te victoire tamit mel nen ni boo gisee zaal bool nii gars yi naan kii zaal bool du zaal bool loolu la man dara réel ci man bàyyi fall damay def li ma def bu sete ma xëy ñàkkaat ci leneen waaw. sa premier combat nga bëri ko Petit Niang ñaata combat nga bëri arène. waaw bëri naa sept combat. sept waaw. am ñaata victoire. am six victoire. am benn défaite. am benn défaite. ki la daan géejawaay la dëkk. waaw ki ma daan maaji maaji géejawaay la dëkk. Zal maa ngi yooyu wax. waaw maa ngi yooyu wax maaj Madji moom ma daan géej waaye la dëkk. ndeysaan maa daan sax sama bopp bi laay wallaay maa ko dóor mu def kaw débu. ma waroon ko boobu keroog doguma la waaye képp ku nekkoon ci làmb ji nee na Zal Baol moo jaay làmbam. non xam nga rek foogu xale moo ma jaax parce que tey dama tàmm su ma ñëwee dama imposé dem jóge fi nekkatoo affaire bi noonu affaire bi nekkatoo dañ koy considéré ko normal doog a dem. nga bëreeg wànc Madji def nan ba mu daan la. waaw Madji arrêté ma taxaw mu taxaw léewtoo ma dox ci garde gi mag la mu bougé ma gauche droite ma déclenché une mu kaw a dëbu ma waroon ko teg loxo tegu ma ko loxo may laaw may laawee mu mu mu esquivé dóor ma ku ma jël ku bëgg a def kaw a dëbu du jóg mu bi max ma saako bi yóbbaale ma toog noonu la demee maag ma ji. kaw a dëbu ma bu max ma ma teg sama pied ci saako bi dem waaw. ma daan daan waaw. defet boobu après mu la def. non metti na ma lool. metti na ma parce que dama mën mbër ba pare mu daan ma dama mën mbër ba pare mu daan ma waaw mu metti ma trop mais dama xam ne boo liggéeyee yooyu du dara quoi après ci laa ko fàtte dem nekk. saa doo ñu may son bi tuuti ah? son bi foor na trop. yeggale. ma ne metti na ma trop mais dama gëm ne après day jeex parce que dama mën mbër ba pare mu daan ma bi ma ci jógee ma gën a nekkaat ci sama bopp liggéeyaat àndaat ak samay mbok xam ne li ci kanam moo gën a moo gën a neex mooy gën a wóor waaw. bi nga jógee ci Madji Madji koo jël. bi ma jógee ci Madji Madji Issa bu Kër Mbaye Fall laa jël. Hmm. Issa bu Kër Mbaye Fall xale bu mën a bëre. saa waaw ndaanaan ma jël ko gars yi naan non Zal Baol dafa jógee ci défaite waroon na arriéraat parce que koy dox lañ ma doon wax loolu sama ménage Sarou Fall bi ñëwee ñu ne ko booy bi dafa jógee ci défaite ci tey boo ko joxaatee Issa Issa moo ko njëkk ci làmb day faam mu demee mu ñëw ma ne ko père mu ne ci biir géew bi xam naa sama bopp xam naa maay defet boobu dama waroon daanu daanu naa kii moom moom mag moom ma jiitu ci làmb mais su ma ñëwee damay wane sama bopp dem yooyu dara da nga jóge ci defet man li ma gis gars yi def ni man góob ma yooyu da nga jóge ci defet da ngay arrière xoolaat lu nooy pour ñëw bokkaat ci rang bi non man dama gëm sama bopp te mat naa sëkk damay dugg ci biir garant yi bu waxante parce que Serigne Touba. fi mu toll nii bi saison bi tëjee ba léegi wala bi mu ubbee ba tey promoteurs yi ñu ngi lay contacter. waaw wax nañ ma fi ay trois combats yoo xam ne tey dafa yàqu. trois combats yu yàqu. trois combats waaw. loolu mën a demee. ah gars yi ñooy ruux am na promoteur bu ko bëggoon mu daw. Coly Faye daw na jëli kii nu général la jël bu Faas. général bu Faas da jël maa ngi Youssou Ndour am na promoteur bu ci nekk. Youssou Ndour man bu per Balla Gaye. Youssou Ndour bu Père mais waxul dara. gars yi ñuy daw dañu war a bëree. parce que man euh, kii waay même ñu mën a wax gin sa. gin gin bu yoof. ah mais gin dafa daw waaw. waaw. ah man de loolu jaaxal na ma parce que Zal Bawol yàgg Youssou Ndour rek xam naa ne bu ñu tëjoon arène nationale njar ndeem na tuq sa bënn saañ ba réer la. loolu dafa neex dafa neex maa ngi Youssou Ndour rek ci biir géew yi loolu dara dàq ko te dama namaat dugaat foo pour wane sama bopp mais nañu bëre ci suñu biir te bàyyi mag ñi ñu wër xam nga la promoteur yi war a bàyyi dama koy lancer appel ci promoteur yëpp bàyyiwuma kenn dañu war a bàyyi xale yi ñu jël di leen jox ay mag affaire bu noonu da jël ñaari xale nga jox leen ñu buuxante parce que amateur dañuy bëgg ay combat jànk c'est ma dégg mais dañu jël xale jox ko mag loolu combat du mën a neex parce que tey doole yi duñ tolloo dañu jël ñaari xale ñu def ko boole leen mu nekk combat soog amateur yi fees loolu nga wax sax dafay tax ma indi beneen jàngat ci làmb ndax gis nañ Tapha Mbeur mu jóge barki démb moo Ndiaye mu jóge ci mu jugee ci Mame Balla Mame Balla daan ko mu dem jël Alioune Sèye Junior am na ci ndam certes waaye ku nekk danaan mag la jël gis nañ ko ci abu ñaase barki démb mu jël Tafa Gueye 2 léegi pourquoi pas Abou Niasse wala Tafa Mbër wala euh, wala Youssou Ndour ñett ñooñu. waa xam nga abu Niasse man maa ko daan. man maa ko daan mu jóge ci dem jël. Euh, Tafa Gueye 2 stade Jom Iba Mar. stade Jom maa ko daan mu jóge ci dem. premier grand combat am. Mhm. mais promoteur ci laay wax Tafa Mbër nag astafurlaa ci tur sax parce que damay seetaan interview yu bëri dañuy wax Zal Baol mais nangul tudd sama tur te man nit laa. Mhm. moo tax tur tur na boo ci waxoon sax ma ci wax. moom tamit xam nga su ma awee góos. ah sa ah parce que bëggul tudd sama tur. suñ ko jekkee micro zaal bool du ci wax day daw génn. xam nga defuma ko waxuma ko nit la dox nañ combat bi mu ruux moom ay mag lay wër. moom dafa mbër di xoolal maa ngi koy paral lu garaaw bis ma ko tàncee mu ambalit du bandi barke Serigne Touba ragal la. dafa mbër ni mu amee fit ak ni mu bëggee xeex ni mu bëggee riigu raago yooyu. ñooñu mbër yooyu ñooñu noonu la man seen bàyyi pour muy leer <laughs> déggoo ma may jël. waaw man bool bool bi ñooñu ñooñu may wax man seen bàyyi laa. keroog kan limal. non du ma lim mais bébé na ci Tapha Mbeur moom parce que tey boo nekkoon Zal Boor rek boo nee Zal Boor ay eh, ñii jàppal bàyyi la ab ah, fii fii dara yombul de bool bool bi day bu nga teg alxatar du maye dara bu waaj a suuf da lay diriger la fecc loola ñàkk loola la doog laa daan. dégg nga li ma la target daay ñoo leen gën a dëgër fuute bi ma leen jàppee Iba Mar laa la dama leen tegal sees di leen waas par benn. loolu def nañ ma ko ma maîtriser ko arbitre ma am abu ma dox ci kawam joobal ko avancé boo ma fekkee ci école bi nii sax xam naa doon kii mooy Zal Baol waaw. bi ma dugg see nee naa Zal li ma jaaxal mooy tur bi moo gën a sur euh, rëy jëmm ji turu Zal Baol foo toll képp kuy amateuru làmb même bu xamut làmb sax boo ne ko Zal Baol danaa la tur boobu de miin naa ko waaye jëmm ji miinu ma ko lan moo waral loolu. nijaay nijaay dama bandi bëgguma ko sax di ko wax. parce que borom daar dama aay ci gars yi booy jóg jóglu nii dama ay ci ñoom dama lay tànc doo wax parce que Serigne Touba moo tax nañ bëri ci suñu biir dafa am ay combat dafa nekk neex ay combat yu neex parce que tey Colifay xam na ne Zal Bool Colifay ma dugg Thiaroye daan Brise de Mer 2 xam nga daan Abu Ndiassé ñoom loolu ñu wax man gëw ma ne ay doomu ndey lañu parce que man tey boo duggee nga daan sama doomu ndey tey même suma la rawee sax damay sawar pour bëreeg yow. man boo daanee sama doomu ndey laa la même su ma la rawee damay nangoo wàcc escalier affronter la. comme tey ma dugg ci équipe bi gis ni ngeen mel Ibou faal nekk seen grand ma dëpp ko daan ko yow nga ñëw taxaw ne ma kaay kaay kaay ñu bëri. non loolu bu amee man prix du ko yàq su ma waree bëri un million ba ma su ma waree bëri un million ba ma joxee cinq cent mille ma jël parce que dafa am lu may bëgg a raxas man damay gëm nit bu am gëm-gëm lii laa bëgg a def. piqûre loo xamante ne dugg rek génn da ngay rek génn fi noonu yooyu day yomb non non day yomb boo ñëwee man damay jël li ma moom man loolu laa gëm. Zal ñaata at nga am. waaw Zal boobu mu ngi judd quatre-vingt-douze. quatre-vingt-douze nga judd. waaw hmm. waaw. 92 laa judd juillet 92. ñaata kilo ngay pesé. 106 103. kilos. Hmm. ñaata sa mesure xam nga ko. non mesure nag jàpp moo ko quoi. 1 mètre 95 85 80. 95 yooyu noonu. laal nga ko ni jaay xam nga ma de. daal <laughs> bët day natt dama lay xool rek nattal. 1 mètre 95 laay laal normalement. bilaay walaay. 1 mètre 95. lamb simple yi yaa ngi ciy wàcc gisuma la ci lamb simple yi déjà. non doon naa ci wàcc nag quoi mais gëj naa ci wàcc. doon naa ci wàcc doon naa ci fayeku doon naa jël. bilaay walaay. mais champion am na sax tey tànc naa leen de. comme ñan. non dama du bëgg a tudd tur ñi am lim rek man maa la laaj. bëgg laa kii ñu dem ba nekk sama gayan te gën naa leen ñu dem nekk sama gayan du yoon may wax jàpp naa leen petit côté bi am fu ma jaar ñoom xam nga mais nag lambu simple bi des fois day laaj préparation yi doo xëy rek dem ci xam nga mais bàyyiwuma ko quoi un jour bu yenn ram mën nga ma gis ci biir terrain bi waaw. Zal noo gisee wasaare lamb ci lamb. non man moom lay seetaan man chaque samedi nii moom lay déglu ba ay 4 heures du matin yooyu noonu jàppal baal billaahi au nom de dama lay sa émission yu bëri dama koy suivre billaahi Wassare moom vraiment gis na nekk na site boo xam ne ñu ngi ñaan euh, yàlla na yàlla suñu borom def mu dem ba nekk télé bi gën ci télé yi parce que tamit ay xale yu am talent ñoo ci ne yow rek foo nekk rek foo nekk rek sama doomu ndey bii toog ah Baye Fall bi. sëñ Bass borom revue de presse bu neex. waaw borom revue de presse dama daay sa waay nekk rek jàmm dafay tuuru. te yàlla na yàlla def ñu dem ba di leen dégg fi ñuy dégg ci ponkal parce que mënuñu leen xëy na tey sens la ak maanaam lu jotagul lu jotagul jotum du ma ne sax chance nii parce que mënuñu leen ëpp sens des fois dafa am as bu ne ak la ca war a xew maanaam jour bu ne ak la ca war a nekk waa dëgg la. yoonu ndaw du gaaw. waaw temp temp rek. te làmb fi mu toll nii kenn moomu ko. mën nañoo jékki-jékki fa fañ naan VIP yi ci kaw nga yegg fa yow Zale. man dama gëm loolu làmb xale koy yor xale koy def. xale koy def man moo tax à tout moment man damay bëgg a dugg ci lu tàng ci combat choc yi di wane sama bopp xale laa mën naa bëre du ma ragal am naa doole am naa ginnaaw comme gars yi man bëgguma lu yomb comme booy dëkk parcelles yooyu nga xam tey dañuy dem di wër ay pa mm, xam nga. Tapha Mbeur la rek waxal turam. Oh, du ma tudd turam parce que nee na du suñu yi boo gisee ni mu. ay Tapha Mbeur tey daj nga Zal daal mu ngi attaqué Tapha Mbeur. ah wax nga ba li bàyyi papaam sax de. waaw man bàyyam laa man maa ko wax sama lu baat kaw. parce que tey xam nga ñoom genre boobu lu ñu gis dañuy xam ne euh, grand bi kat dem na ba ci biir day dajal xaalis pour dagg bi dem États-Unis léegi bu jëlee combat bu ñu ko fayee un million du ci nangoo def xaalis baal ma jël ko su ma su ma ko jël su ma ci defee xaalis demine ko ñëw daan ko parce que am na grand yu nekk ci làmb ji instant yi bëreetuñu ngir palmarès dañuy dajale xaalis pour am billet dem mais génération Zal Baol dañuy def seen làmb li ci war entraîné dem fu ñu war a dem fu ñu mën dem. bu ñëwee taxaw jël bakkan bi sànni ko ci biti pour am ndam seen nga samay combat sax maag abu maag brise de mer petit ñaa isaa bu kër mbay fall ay jéggi siraat xam nga bugaan dama leen imposé ñoom ñëpp. bugaan neex bugaan dama ko yóbbu trois fois ardo bugaan parce que li tax ma kii dafa daanoon sama gain rapide waaw dafa daanoon sama doomu ndey rapide. kaay toog nii yow Ibou Fall toogal nii. comme man li may faral di wax rek. woote yàlla moo gën woote nit dama koy faral man nee naa aw beneen idole ci làmb gëw ma beneen mbër mu ñuy wax mbër mu mag man kii mooy sama lépp jëlal li ma la wax déggoo li ma la de aw ma idole ci làmb gëw ma beneen mbër mu mag ci làmb man mooy sama lépp su ma bëggee bëre yàlla ak moom moo tax parce que ñoo bokk nekk xale ñoo bokk euh, maa nekk xale ci koñ bu nekk ci grand yërëm ñu duñu taxawu ku ci xewle mu taxaw tey lu bëri ci moom lañ ko gisee tey làmb bu ko bëggee moom la man dama ko doon bëgg di ko supporter tey aw ma mooy sama lépp ci làmb mooy sama mag mooy sama idole mooy sama lépp li may jégaani feneen am naa ko ci kër gi dama koy toog gere kook moom. te bu fekkee nit boo nekk moom bis boo am mu taxaw ci gis nga bi mu daj ci xale yi te du man rek da koy defal duubul moteur caatu rëbës boo ñaar tigre gambien mbëri fi nekk jool jamono ñëpp la koy defal kon yàlla na ko yàlla fay xolam tey li ñu wër yeneen champion yi ci gox bi. mais gars yi ñoo war a gën a jàppale xale yi ñu dem waaw. waaw ñu ngi lay jaajëfal Zal Baol di la bàyyi nga tàggoo rek xam naa li ñu amoon ci waxtu jot na. waaw comme tey ni ñu bëre dañuy profité sant waa Rëbës bàyyiwuñu kenn di jiital président écrit bi Zal Diop di sant coach yi fi nekk yëpp euh, Ibra Faye Cheikh Diaw Balla jóob xam nga Xaarim Jaxate bi nga xam tey tey lépp moom la ay maam xaas. di sant yéen ñëpp sant Ibou Fall suñu garaam bëriñ fi nekk yëpp di ñaan bëri fi am combat yal na yàlla suñu borom may ndam ñi komba combat yal na yàlla suñu borom may combat leen wax ne suñu doomu ndey Albarka Kayre dafa ñëw ci écrit bi mu nekk bees mu nekk Baye Fall combat bi suñu combat la ci ñëpp jàpp pour mu am ndam waaw. Albarka Kayre mel. Albarka Kayre waaw di profité na nga may ma nii ñi may ñaanal euh, di ña di sant waa Touba baax a baax a baax ak shérif yi nga xam dañ may ñaanal. Euh, Baxayda Sidi Buyo Cheikh Talla Buyo sant waa kaw la lew na ña seen ñu kenn ak yaay sama dëkk waa Bawol ma kenn maa ngi sunt ñëpp di la gërëm ñëpp sëñ Modou Abib Mbacke sëñ Amsa Mbacke ma kenn sëñ Saliou bu sëñ Abdou Karim maa ngi sant ñëpp. jaajëf Sall. dégg nga waay. jërëjëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la Zal Baol wax xale la boo xamante ni li ma leen waxoon sànq rek tur bi. fa mu yegg jëmm ja yeggut foofu waaye macha allah boo duggee ci làmb bu bëree mu neex su xeexee mu neex kon ñu leen di jaajëfal ci jaaj tàggoo bi nga xam ne moo du tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xeexu làmb jërë ngeen jëf.